Sénégal 4 TV yow yaa ko ku ne mën wax xalaatam ci Sénégal 4 TV numéro Sénégal 4 TV mooy 77 507 27 29 Sénégal 4 TV forever. bu dee gan nga ci kër gi nag bésal bouton abonnement bi teg bul fàtte activé walla cloche de notification bi de ngir bañ a tardé benn ci ay vidéo yi ni def ay et maintenant bon visionnage. Baye Cheikh Diop dek ndaw ay atam tolloon ci fukki at ak juróom-ñaar ginnaw biñu ko bomé jeudi le 4 mars 2021 jeunesse yu yëmbal fas yéene ko delloo njukkal aljuma ji à partir de 15 h ci station yëmbal ci nonu ñu jokkoo ki nga xamantene moy way juróom bu goor di Baye Modou Diop. maaleykum salaam. ñu ngi lay nuyu baax di la ziar. ça va alhamdulilah. tuddu awu tudd di journaliste senegal 4 TV. waaw ñu ngi lay masaw bu njëkk ci xew-xew bi. waaw rakk ji di Baye Cheikh ñu ngi koy ñaanal yàlla yal na yàlla yërëm ko. waaw uh, xare ko aljanay firdawsi. waaw yow it yàlla may la xolu muñ bu baax a baax. dañ jot information que ne dafa am marche bu ñuy waajal suba incha allah vendredi. waaw voilà dañ bëggoon a xam rek marche boobu lan message rek ngeen bëggoon a lancer askan wi autorité yi ak képp koo xamante ne mi ngi leen di déglu. man marché boobu jiwut sama man. Mm-hmm. man marché ma. Mm-hmm. ndax sama doom daa dee. dëgg la. suuloo ko. Mm-hmm. santaane wu ko. dëgg la. xam nga réew mi daa am dafa am borom. waaw. te réew mi fan yi daa yëngatu. waaw. te man yëngalu ma woon réew mi sama doom cee dee dongo. dëgg la. man xeexu ma woon. sama doom danoo liggéey ñu fekk fi muy liggéey rey ko. man wax woo na woo naa ay rajo de wax naa naa journaliste de xaw ma seetaan nga tegu gën nga am de. waaw waaw. xam nga man marché ma xaw ma ñu def. waaw waaw te santuma leen ku teg ci. xam nga wax naa ko àdduna fi mu toll nii. waaw bu la nee nga ne papaam jot naa ko te par téléphone. Mhm. waaye message bi mu joxe santaane wu ko. la. ndax man lépp luy yàq Sénégal. waaw waaw man bokkuma ci. Mhm. affaire bi du mars. Mhm. dëkk bi am na yoon dañ faa àggagul. dëgg la. xamaa a te man jullit dëgg la lii te man la mu jëlaat daal man mi bàyyi bu may jooy sama bopp laay jooy. dëgg la gis ngeen xale bi xamaa àdduna taxawoon nañ ko. dëgg la nan ka sant yàlla. alhamdulilah ndax bugguma wax la nga xam ne bu ëllëgee dañuy wax loo wax ndax fi mu doon àdduna dafa garaaw. dëgg la te di ay fan rek la. Mhm. ah ñu fàtte ko. voilà kon damaa bë waaw. Mhm. sunu frère bi ñu bi ñu jot. Ah. ñoom xamle nañ du marche boo xamante ne dafay am violence maanaam pour rendre ko hommage la delloo ko njukkal muy jeunes yi waa yëmbal yëpp incha allah. waaw man kay bu amul coow man maa maa ngi sama kër xam nga man damaa nekk sama kër te du ma ñëw. dëgg la. ndax ko boo nee wóotewu ma. Mhm. bul dem. dëgg la ndax dafa neex. Mhm. yen ngeen di ñëw ne ana ana ana ana ana Modou Diop. dëgg la xam dafa neex maa ko jur. waaw léegi ku fa présenté wu. Mhm. sa bopp nga pere ma présenté wu ma ndax sama rakk ngi nii toog benn rakk laa am. dëgg la damay bañ kenn dox sama tur. lool loolu laay bañ ndaxte man Sénégal daa amul tolo tolo ñu ngi koy réglé si mag ñëpp jóg nañ. Mhm. nan xool ndax ñi di nga lay wax duñ ko def. dafa am ñuy wax duñ ko def kii wax ku jël sa responsabilité boobu ne yow la. Mhm. boo ci amee problème ñu woo la. loolu la su neex sa artiré lool. dëgg la. xam nga ji man xeexuma. Mhm. xuloowuma. laa pee laay woote. dëgg la ndax Sénégal jàmm doo nga fa xew. waaw waaye keneen ku def. sa coobare bopp nga def. leer na ndax wax naa ko Sénégal wax naa ko àdduna wax naa ko rajo yi. Mhm. ko bëgg na ma na mooma nit ñi. Mhm. man jooy baay Cheikh Baye Cheikh am amagul sax juróom ñett fan. ma yen ma yenn damay dugg ci kon xam man li ma doon wax gëwuma kon sama doom bu ko ci mars kon dama mars. sama doom mu karoon ci mars. Mhm. ma mars sama doom dañ kaa bu ñuy def sama doom dañ kaa fekk moom dañ kaa tooñ. dañ kaa fekk ci biir gaar tam boom ko. kayit yooyu daa bëgg a lijjanti waaye fi mu toll waaye problème ay marche moom. Mhm. sama problème ndax affaire am ñu am ni ñoo dañuy ruuf suuf. Mhm. pour seen xam-xam seen intérêt moom. dëgg sama yoon nekku ci. bi xew-xew bi ame ba tey ndax jot nga autorité wala déplacé wu nañ ñëw assister leen mbaa taxaw leen. waa xam na comme jaww ñi demee dinañ ñëw. incha allah. ndax am na ay maire yoo xam ne ñëw nañ ko Mbaare Gueye. Mhm. ay maire yëmbul ay kilifa ak am na kilifa yi daal ñëw nañ ci. dëgg waaw way bañ wax da xamne bu ëllëgé bu mhm. dañ wax papa ma ko wax. Mhm. man damay wax rek Sénégal ya na fi yàlla fi jàmm. allahumma amin man loolu mo ñor. amin kon man dama juddo Sénégal. Mhm. màgg Sénégal. te bu buma dee Sénégal la may sul suul. kon luy défar Sénégal la no jeune sonna Sénégal la dëgg la. waaw. papa ñu ngi lay jaajëfal. waaw di la ñaanal yalla aussi bu baaxa baax di rafetlu kaddu yi merci beaucoup ah, ba wa jere lola la bëgg ñu xam ko yeen bu la neex bo mané comme cadeau yi ma da bëgg man ka envoyé inshallah par message nga xam na len papa mom wona ko ba jot ko mm-hmm. ndax a ah, lu bari nit ñi dañ ci rap mm-hmm. mané len papa mom doom lay joy deug la da day défar sénégal mm-hmm. ah li yalla ka momon yalla ka jël deug la nan dem xam ay mars amu ndari xam am njariñ ku ne jema liggey ku ne jema wut place bo xam am fa ñaar fuk dëgg la moo am njariñ am na xam ne réew mi ñoo am na nag Sénégal ñu ko bëgg a yàq mm-hmm. waaye buñ ko bëggee yàq buñ ko yàqee ba da am ñu ngi koy bëgg a jiiñ mm-hmm. te ñu ñooña mm-hmm. kon nag il faut ñu ji kon ñoo moom Sénégal nañ xool ko defa mu rafet muy yow muy man muy keneen incha allah man daan jàmm dong laay woot xaw ma da a kaa ah, xaw ma am audio la xaw ma waaw waaw bu tim man ja ne ko bàyyee moom audio jaamu la woote. leer na nañ. waaw xamal na papa moom jaamu lay woote. ñëpp dinañ ci jot kenn ñàkkul man maa ñàkk. Mhm. ndax amoon doom yoo xam ne moom ma daan yor dama jox dépasse. ci mhm. ndoor keneen du ma jox dépasse. maa koy wutiwaale sama bopp. ndox ma ma daan naan ma ko daan jëndal. Mhm. kon su ma toogee ba ñàkk met na ci man. waaye lu metti jaam lay dal. dëgg ñëw ëllëg moo dàq. yàlla li mu doom doomu aadama du gis. dëgg la suba laa xam ne. bu soobee yàlla kii dina ke moom kenn du ko déranger ndax ay bàyyam taxaw nañu. dëgg la ndax bam papaam ba ma ko ne kii woo te nelaw malaaka di kat malaaka sax ku malaaka du déranger yow man xëy day yeewu rek ñoo xam ne bari sax ma. day naaw fi mu nii. dëgg la dama ko bëgg bàyyi seex du nit kan si nii. Mhm. da doon mars. Mhm. bàyyi seex da doon liggéey ñu rey ko. dëgg la nangu naa. Mhm. bakkan foofu la waroon a des ndax xam nga tax. dafa sant Diop. sëtt Lamdoor Diop. Sër Ngunte Diop. Mm-hmm. Ibra Xuri. Mm-hmm. bu daanoo te xar rek wàcc na. Mm-hmm. man doomu njaamu njaamu laa. liggéey samay mbokk tabax jumaa moom seen tiitar. ak jaamu yàlla. àdduna si dañ koy ah, day jeex. soo ko toppee mu jeex sama doom nga ne xëy may yaakaar day ñëw jeex na. keneen ku gëm na lii day wéy nax nga sa ku bëgg lu si nga àdduna bu ñuy wax ne mujj ko rafet. na la fekk ci man jaamu Sénégal laa bëgg. jaamu Sénégal mooma ñor. fas yéene xool na nu may defaat. Mm-hmm. ba liggéeyewaat. Mm-hmm. yal na yàlla yombal papa yal na yàlla yombal yëpp yàlla xare ko aljanay firdawsi incha allah. ñu ngi jéggalu bu baax ñu ngi jéggalu. waaw xool naa nu may def ba liggéeyewaat pour wutiwaat dépasse. Uh-huh. ndax kam ko doon jox dem na. yal na yàlla féete la foofu. amiin yal na yàlla féete la foofu incha allah. jërëjëf papa kàddu yi rafet na. ñu yendoog jàmm. boo fekkee ne audio la tim. waaw waaw. ah waaye kon ma la wax man yónnee wu ma xeex. wallaay leer na naa ñu papa. police samay xarit lan. Mhm. gendarmerie samay xarit lan. dëgg samay xarit lan. Mhm. pompier samay xarit lan. Mhm. ba mu ba mu méttee boo ko def moo ne sax def ko audio. ba mu méttee. Ah, pompier ma njëkk a taxaw. bi may pompier di taxaw. te dansé la ma taxaw. kon maa ngi sant yàlla. di sant ñépp di ñaanal Sénégal gi yàlla na fi yàlla def jàmm. amiin ay taal Alhaji Abdou lan. Alhaji Abdou doon woote. wallaahi jàmm jooju bu fekkee ne daa dal ci taaliba Alhaji mi daan woote jàmm. Mhm. taaliba Abdou Alhaji boobu nee na. Mhm. comme message ma xam ne lii moo ko woon man fan mu jël ko jaarale ko ci man mii. Mhm. jàmm jooju Alhaji woote. nan naka Sénégal doxe Mm-hmm. ñun ci jaamu la dox. Mm-hmm. ca la ñuy wax. Mm-hmm. ku bëgg ak jaala ji. boobu ñu mën ngaa ñëw. waaye man xëyaxuma. diggéewuma ko. wax day leer. leer na nañ. ndax damaa yor ak njaboot yese naa ñu ndaw. Mm-hmm. tey naa damay jëm a tànn sawaat keneen. yàlla keneen nga xam si ni man ku ma war a farma war xam na bu ëllëgee. Mm-hmm. yàlla xanaa bala balaa koo kooku dana dem ma lekk njariñam. incha allah may ñëw ñu ñu ngeen yóbbuwaat ma caare yi. ñaan yàlla daal lu may defati. Mm-hmm. su ne ba weeru mu lakkaat ba mu woon. naa ñëw woo sa àdduna nag ñu toogaat ñaanal ko. waaye fi mu ne lu ñuy def daa teel. ku ma bëgg na ñaanal ma sama doon. waaye marche bu na ci joxee million koo koy jox pour nga ko wax ne man mii waaw man la gën a jege man mii ma la fekk yow yooyu yëpp pour sa bopp la. dëgg la. yàlla na yàlla defal jàmm. allahumma amiin. yàlla na yàlla def Sénégal jàmm. amiin amiin. Sénégal la na am. amiin. jàmm fi jàmm dong moo xaj Sénégal daa tuuti. billahi. jàmm dong nga fa xaj kenn ku fi andi jàmm. Mm-hmm. da lay jaaxal. billahi. barke Seydina Muhammad képp ku fi andi jàmm ndax dégg naa ñe. Mm-hmm. coow bi moo gën a métti coowam ana ba mu di gënee si nga ana ba mu gënee diis. Mm-hmm. ca laa judd. Mm-hmm. ana ba mu gënee métti Sénégal te bari ya. Mm. ci laa man. bàyyam kon moom moom du setti moom. Mm-hmm. waaw at bi mu gënee métti senegal ba lay tàkk ci man ci laa at boobu laa judd. kon nag moom bu juddoo moo mu tàkk mu tudd ñu tudd ko mu muy sama doom. Mm-hmm. marche dañ ka dañ ka at dem ray ko. Mm-hmm. kon moom wóor ma ko am mu ko na marche sax ñu yedd ma boo dee a. Mm-hmm. ndax man ku rëy te marche sonn te marche. dafa war a marche woon. at dem lañ ka fi ko bal. wallaahi wu ma marchaanu ma. ñun ñoo bokk Sénégal. dëgg la la ñuy liggéeyal yàlla mën naa doog a dina clic ba mu sotti. rey bu nga na. waaye bii moom dina xam ku ko rey sama doom. incha allah incha allah ci. xuloo ma ci. Mhm. waxuloo ma ni dara bés bu ma jógee ba jéeg ci daj bi. Mhm. dinaa yekk dossier bi àdduna dina xam ne dossier bi teg naa ko loxo doomu aadama. incha allah comme daa am naa bàyyi. Mhm. am kilifa. bis bu jotee. ma jox ko borom. yal na yàlla dafa jàmm. amiin na yàlla leeral yëpp Sénégal yal na fi yàlla def jàmm. allahumma amiin papa dong. fekkee na lu ñuy wax la te woo te suba la ajuma. o mhm. fekkee audio la bu la neex envoyé na leen kat woo par téléphone. Mhm. wax ju rafet ji la bi wax. wallaahi Sénégal jaamoo fi xaj. incha allah keneen lu leen ku fi indi lu jaam sa kaw lay ko. ñëpp dinañ ci jot bu soobee yàlla. waaw d' accord papa jërëjëf. waaw jërëjëf ñu yendoog jaam.